Assalamualaikum, maa ngi tudd Aliou Samb di liggéey Kër du Imo di Kër du Imo dafa bokk ci Kër du groupe waaw ñu ñoo nekk fi ci wàllu terrain fii di fii ci Burofay Baynug wi mooy bloc A ñu koy site 1 bi am bloc B boo xam ne boobu la ñuy tuddee tam INSEC waaw tey foofu lañ nekk ni Burofay Baynug ci bloc A bi. 2 hectares et demi 57 parcelles de 300 mètres carrés de 400 et quelques mètres carrés actuellement 300 mètres carrés mon fi nous avons 350 000 francs avec titre de propriété. waaw c'est important ce am importance ci site de rendre site plus visible génne lotissement parce que si vous regardez, da ngay mais si vous avez onglet vous nañ ay bornes mais bornes yi dafa ndaw du visible mais boo defee onglet yi day gën a génne plan de lotissement bi moo tax ñu defaat kii onglet yi comme ça client bu ñëwee fi bu toogee day gis ruelle yi day gis loo yi parce que dañ koy teg ci chaque borne moo tax onglet dafa baax si site donc day rendre plus accessible plus visible moo tax temps yi yëpp ci loolu lañ nekk di liggéey ci onglet yi di ci liggéey pour site bi gën a visible gën a accessible comme ça di nga gis plan de lotissement yeneen yi jaay nañ ay yeneen 300 mètres carrés yeneen 225 mètres carrés mais actuellement ay 300 mètres carrés ñoo des yoo xam ne 350 000 lañ koy jaay parce que dañ ko wàññi euh, ëppoon na foofu waaw mais actuellement loolu dañ ko réduire pour mun a évacuer parce que am na yeneen plan yu ñuy yu ñuy commencé di lancer moo tax bii parce ñu décider def ko 350 000 pour. mettre sa à la disposition de la population. lotissé nañ yëpp boo ñëwee fii plan de lotissement bi yëpp mi ngi fii teg nañ ay bornes onglettes yi nag njëriñ boobu lay kii boo taxee rek si site bi di nga gis onglettes yi boobaa di nga gis plan de lotissement bi waaw moo tax am na ci solo trop. parce que Kër Tambadou groupe parce que yorul benn structure structure yi dañu va de parallèle boo xam ne boo ñëwee fii nga jënd terrain boo soxlee tere mun nañ la ko jaay waa IMO ñi jaay la terrain boo bëggee boo gisee équipe construction Kër du construction mën nañ la tabaxal sa tere fii nii si sit bi sax noo ko bëggee équipe bu xarañ moo fi nekk am na yeneen tam branche yoo xam ne Kër du santé Kër Tambadou du yooyu yëpp mën nañ la ci taxaw lépp loo bëgg a daal mën nga ko def ci biir entreprise bi Kër du group te doo ci am benn problème moo tax équipe construction bi ñii yëpp solo ñoom ñoo nekk ci onglet yi fan yi ñu si yeneen chantier mais temps ñi fii tamit waaw fini comme li ma rek avec titre de propriété am na ñoo jot jot nañ seen kayit mais am na ñoo xam ne tamit boo ñëwee déposé fii dafa gaaw parce que titre de propriété la doo ñëwee mutation la ñuy def genre yooyu ñu daal di lay jot sa kayit du yàgg comme yeneen yi nu muy parce que affaire de terrain moom kayit la laaj te kayit la administration lenteur administrative Sénégal ñëpp xam nañ ko waaw moo tax ñun dañ koy jaarale fu mu war a jaar mu leer nañ ñu jox la ko boo ñëwee am na titre de propriété du yàgg parce que am na ci tour ku mu nekkoon bu ñu waxee titre de propriété am na ci tour ku mu nekkoon juste dañuy def mutation bi changer ko def fa sa tour waaw boobu ñi ñi livré la ko. fii mooy site numéro B moy deuxième site bi donc moy site IMSEC bi parce que wa IMSEC tamit dañoo financer seen i clients ñi ñëw ñi jënd fi donc mo nek ni fofu lañ nek ni donc mu doon site bo xamné ne gis nga nu mu euh site yi borné nañ ko lotissé nañ ko kayit yi génn na na donc comme numa ma la ko nu mu ko donc fofu lañ ñëw ni pour woné suñ taxawaay fii mooy fexe ba képp koo xam ne ne jaay nañ la terrain vraiment nga ñëw gis ne que nan la ñuy toppatoo pour sa terrain mu amal na njëriñ ëllëg. fii nag am na ñoo xam ne ñoom ñooy gérer terrain yi ak di gérer tool bi donc ku ñu naan Souley moom fii la nekk si dëkk bi si population dëkk bi la donc boo xoolee moom moo ñu jàppale bi ñuy jënd tool yi ak le chef de village di Yaya Koli donc bu ñu ñëwee nag ñu teg ko ci loxoom muy def déchusage yi mooy defar lépp lépp loo xam ne ne.

ñun xooluñu Tambédou kese ñun ñi am ci mais dañu bëgg population Mbour eh, population Bour Fay ñoom tamit ñi am ci muy jeunes yoo xam ne ñoom ñooy béy fii ñooy defal lépp ku ci bëgg a béy aussi nga béy ku ci bëgg def loo ci bëgg a def ñu jox la ko nga def. man Souleymane Bassène laa tudd maa ngi dëkkee fii Bour Fay bàyyi noonu euh, Tambédou nag yàgg na bu ñu jàppooyee bu mu bëggoon place bi fii ñi ñëw woon ko yàlla def ñu déggoo mu jox ñu place bi ñu liggéey waaye at nag. pour fii yaatu siit siit la woon bi nga xam ni dafa lëndëm ñu xeex ko ba mu ñëw ba yaatu nii rek pour rek dëkkuwaay dëkkuwaay la ñuy ut ñun jamono yi booy ñëw fii sax da ngay ragal léegi yàlla def na ñoom ñi ñëw bu ñuy ñëwee ñu ne fii la ñu soxla ñu ñëw ñu won leen place bi nu mu toll après ñu ñëw déggoo ci ñu jox ñu ñu liggéey place ba nu muy yaatuwee nii quoi. waaw fii fu ne nii ku fi bugg a moom mun na fi dëkk ndax leer na boo xoolee côté bii. xoolal sa ginnaaw nu mu mel par rapport ak fii xam nga fii doo ñëw nga ne da nga jox nit donc kon léegi fu mu ne nii place bi yaatu na leer na foo taxaw fu ne mën nga xool ku fi pare dëkk si na ñëw dëkk si waaw jàmm rek moo fi ne lii amatul fu mu ne nii léegi jàmm la ñuy ñaan te fu mu ne ni nit ñaa ngi dëkk si. partout fi ba Kantene ba sama côté bi yëpp léegi xana shit bi rek mo def te bi bu tojee rek nga xamni ni dëkk ñëw na ku teelul ñëw rek fi ba ay yenen at encore ci ginaaw nu muy démé non lay gëna a yokku mais moment bu ñu tollu ni ku fi ñëw rek xéewal nga fi fekk waaw ñi ngi gërëm vraiment maître Tambidou ak famille am bi euh, ak aussi tamit chef de village bi ku mu ñëwul ku ko jox fi waaw ndax affaire bi ñom la bala ñi mëna dara aw fi jam rek mo fi nek ku bëgg dëkk si na fi ñëw dëkk si place yaangi ni suusi natna na amul benn problème. waaw bi moy bloc B bi ñukoy bloc IMSEC bi so gisé ñukoy bloc IMSEC cotisation moratoire lañ ko defoon ñu jox ko banque IMSEC bi pour les concernés ñoo xam ne bëgg nañ ñi dem di verser par versement moratoire chaque mois ba nga pare ñi ñi attribuer la sa terrain moo ñu tuddé ko bloc ta fi fii mënatuñu fi jox kenen jaay nañ presque lepp ñeneen ñi ñu dess ñom lañ nekk di relancer pour ñi terminer après ñi attribuer leen ñom ñep commencé nañ identification bi ak Ablaye Tambidou sa ño xamné paré nañ cotisation dal lay andi ba fi identifier la parce que tout est numéroté wala sa numéro lo ko paré pare na ñun ñoko andi identifier ko fi be mu andi plaque mu tek kooku bu ko nexé suba suba sax mu ñëw taba fi 2 hectares 50 et quelques mais deux hectares la parce que bee moko op bloc bloc A bi moko fi mom jaxna moom 20 na fa dess bo yéexee tam do am mhm. des prix abordables xam nga moo tax relancer ñep baxna ci ñi ñep xam lolu ñi daw ci ñoo bénéficier wu mhm. bloc B bu dess kep ku ci soxla da ngay contacter Souleymane Khassim sen numéro yi mo nek ni 77 381 56 56 wala nga contacter 77 039 37 33 boo leen contacter boo demee bureau ñoom dinañ la expliquer ñu andi la fo woon la après ñi andi la si terrain bi visite ñi ñi ñi jaay. di lënd o samedi même les dimanches parfois on travaille mais di lundi au samedi on est de huit heures à vingt heures boo ñëwee foofu rek di fa fekk équipe bi mi ngi foofu.